Le mouvement Mbacké Ca Kanam vous la grande soirée de lancement du dit mouvement. Attention mesdames, attention mesdemoiselles, attention messieurs. Une soirée classique, une soirée prestigieuse, une seule date. Le Ñu le jeudi 26 avril 2018. tous les chemins mèneront au théâtre de verdure de Mbacké en compagnie de Mbacké ca kanam ah mbokk yi guddi googu de dana neex dana metti waaye jàppale dana yàgg lool dana doon nag ci mbuy bax war ko mën am ruq bu sedd ànd ak mbokki Mbacké ca kanam rek ah mbokk yi ku ma daal na ma massa man Balla Gaye numéro 2 26 maa ngi ànd ak Thiat ca Mbacké incha allah kon gars xar li rendez bi théâtre de verdure bu Mbacké la ak Thiat Seck c'est le 26 avril fasil fa la fas yéene bégale képp koo xamante ni fan sama la bégal waa Mbàkke le retour aux sources.